ne gis naa la ngeen doxal. <laughs> soo gisee soppeeku boobu d'un seul coup. c'est parce que ah kon jàpp nga ñu ngi. tey bu ko jaasee tranquille doo ko déggati. ton ami. oui mon mon ami que nit boo demee ba baal rek ñu tooñ la nga baale ay jullit lañu quoi on devient des amis mais ce qui est important du concret ça n'a rien à voir avec l'amitié il y a des de Damoclès aussi sur la justice. concernant par exemple Diaz qui ne peut plus faire quoi que ce soit lu dul topp ci lu président Macky Sall bëgg wala yàlla y a le dossier en la Cour suprême dans l'affaire Ndiaga Diouf parce que dem na première instance ñu jox ko deux ans plus six mois avec sursis et six mois ferme mu dem cour d'appel ñu confirmer il est inéligible et bu ñu joxee euh, nu mu encore euh, mi ngi defal la Cour suprême xam nga Cour suprême monsieur Camara. Uh-huh. boobu ñuy jaas di def appel devant la devant di def pourvoi devant la cour suprême moo jiitu affaire u Sonko. yàgg na. fast track Sonko bi. mu ñu ko fast track bi. wala dafa am ay yoo xam ni day dem vite fait parce que y a un agenda caché de rendre quelqu'un inéligible ñenn ñi bu ñu négocier ñu bàyyi la décision concernant aussi Khalifa Sall en 2019 boobu cour suprême boobu ñu ko saisir ça a été rapide hein vite fait. bii lu tax génne décision bi léegi parce que bu ñu génnee décision bi de rejet ak quatre-vingt-dix pour cent loolu la nar a doon de rejet du pourvoi Diaz la mairie de Dakar il est maire sur décret du président de la République comme Khalifa Sall en 2019 sur la base de l'article 135 du code des collectivités territoriales oui ou non. ah kon euh, doyen. léegi nag. daa dégg politicien bu ñu wax déjà da ngay gis benn jeu clair na wala amul mais bon c'est pas le politicien qui parle euh, euh, de justice c'est pas politicien. politicien bàyyi sa waxu politicien parce que ba mu ko fi waxee ni lani ma. <laughs> bul ma ko waxati <laughs> acteur politique. voilà man maa war a xoolaat samay kàddu ma donc vous voyez donc euh, ce bu fekkee épée boobu mi ngi sa digg bopp looy wax da nga koy xalaat hmm. dootoo waxati. day nee nga sax dootoo perte mairie de Dakar mais dootoo perte mairie est-ce que ça dépend de toi ça dépend d'un décret du président quelle que puisse être la décision de la Cour suprême c'est pas automatique président su neexee mun du ma jël décret comme nu ma defoon Khalifa Sall du ma la dindi. moom génn nee na moom du ko perte il l'a dit mairie Dakar donc du ko perte donc daf ko waxtaanee. deal yooyu lu ñu war a bàyyi bu la neexee suba ñu ne c'est des gens patriotes qui aiment le pays mais par leur comportement gis nga 2024.